processus su parrainage bi euh, vous l'avez passé au second tour euh, amoon nga mille quelque parent parrains euh, est-ce que am na moment boo xam ne dute nga. boo bëggee dégg-dégg wax dëgg yàlla man musuma dute ci parrainage. ah bon. déedéet xam nga parrainage bi bi mu tàmbalee d'abord bul fàtte ne man ma fi défendroon comme ni nga ko waxee parenage lañ jubluwoon ci parrainage mooy euh, d'abord dañoo bari woon ay candidats xam nga laa aussi des fois dañ koy fàtte di ko rappeler en 2017 dañuy dem élection législative am 47 candidats ñu am problème ba sax xalaat ne bu ñu wotee dana jéggi benn bés ñu booba bi ñu defee ci élection boobu élection législative boobu ci ñi nekk assemblée national juróom ñoo ci amoon caution nationale bi nga xam ne boo ko amee dëgg am benn député li ci des plus forest la woon ñu ne il faut ñu trouver un moyen pour quand ñu rationaliser parce que mënuñu dem élection présidentielle ak lii nga xam ne lii moom la ñuy vivre ci législative ci la parrainage bi judo donc loo xam ne lii dañ ko tegoon pour muy filtrer c'est vrai que loolu mooy fëlawoon d'abord départ bi moo tax bi ñu demee élection présidentielle li euh, nga xam ne bii moo amoon 2019 y avait 47 candidats qui avaient déposé bi ñu déposé aussi à l'arrivée il y a eu 5 que boobu aussi euh, lañ ca jàppoon mooy procédure de de de vérification bi c'était assez sévère loolu moo taxoon aussi bi loolu passé 2019 opposition comme pouvoir comme ni ñu koy defee à après chaque élection ñu dem dialoguer waxtaan pour xool naka la ñu war a mën a fexe ba euh, parenage bi même buñ ci éliminer ay nit ñu éliminer leen sur des peut-être critères plus objectif, notamment le, ce qu'on appelle euh, euh, i i i discriminant moom lañ tuddee woon mooy lañ jàpp ne mooy seul élément bi xam ne bi moo war a empêcher benn candidat war a mën a jàll ci parenage bi bu fekkente ne euh, li mu ci yore bari donc loolu moo doon processus bi et puis à chaque fois mu ngi doon am évolution donc voilà ba ñu yegg si fii nii ci parrainage bi ren nag bari woon ay candidats yoo xam ne ni déclaré woon nañ ne dañuy nekk candidat bi nga xamee ne ni loolu bari na euh, à l'arrivée 93 ne dañuy dem euh, déclarer candidature ci 93 yi euh, am na ñun ci éliminé parce que peut-être seeni dossier matul mais am na ñun ci éliminer parce que dañu ne leen li ngeen def ci ay parrainage def ci bari ay erreur boog wala boog ay nit ñoo xam ne dañ leen wax sax du erreur nekkuñ ci fichier électoral bi te loolu nag saa loolu moo njëkk a indi jiixi jaaxa ci biir opposition bi parce que nag bari na ci ñoo xam ne ñii wax dëgg yàlla euh, éliminer leen sur cette base parce que xam nga parenage bi gën ngaa néew da nga war a am 44 231 parrain gën ngaa bari cinquante huit mille neuf cent soixante quinze parrain loolu moo nekk ci arrêté ministre de l'intérieur boo xoolee diggante ñaar ñooñu koo xamee ni kii amoo minimum bi maanaam amoo li gën a néew ci parrain duñ la examiner kon déjà koo xamee ni kii tey li nga def ci erreur li ñu wax ne ay erreur wala ay nit yoo dugal nekkuñ ci fichier bi dem na ba mu fax fexe bi yow ba nga jéggi minimum bi ñu ne bokkatuloo loolu moo indi problème bi d'ailleurs moo tax opposition bi ñu ne d'accorduñ ci loolu parce que ay nit duñ def seen parrainage nga xëy xëy ñoom ñu jàpp ne fichier ay de région lëmm génn nañ leen ci donc déjà day tax duñu respecter principe bu cette région bu fekkee cette leen déposé woon ñi ci des ñu ne leen da ngeen présenté ay parrain yoo xam ne yi nekkuñ ci fiche électorale ala ko ñoom ñoo ngi yore seen carte d'identité am numéro carte électeur am tous les éléments yor nañ copie yi donc loolu mooy problème bi te loolu nag faw ñu attirer ci attention wu yenn ñi nga xam ne yi dañoo leen dindi seen région entièrement wax ci attirer ci attention aussi ñenn ñi nga xam ne ñii dañoo nekk ay candidats xam nga boo nekkee pour nga nekk candidat d'abord ni ko loi bi waxee il faut nga nekk ci fichier électoral loolu mooy première condition donc mën naa ci lim ñaar yoo xam ne xam nañ leen ay candidats la Mohamed Ben Diop candidat la professeur Mary Teuw ñaan candidat la ñu dem donc ñi ngi ci fichier bi ñu dem jël seen fi fiche parrainage dem donc ça c'était en fin septembre 26 décembre ñu déposé seen dossier deux ou trois jours après ñu ne nekku leen ci fiche électorale loolu nag ça pose problème moo tax d'ailleurs. mais loolu yow mii ci sa expérience ministre de lan moo ko indi. déedéet xaw ma ko man du sama expérience ministre de parce que man nekkuma ci contrôle bi dama ne ñoom dañ leen a contrôler ne leen nekku leen ci fichier bi alors que ñoom dama ne la logiquement ñu ngi ci fichier bi parce que moo tax ñu am parrainage. foofu rek laa yem du mu wax sax yeneen yi am na yeneen yu. waaw mais ban explication ci sa expérience man maa ko expliquer peut-être déedéet man man expérience ministre l'intérieur ministre l'intérieur. mais ci sa expérience électorale lan moo mën a indi imbroglio boobu. xaw ma ko parce que ministre de l'intérieur moom contrôlé wul élection présidentielle def moo ko woon 2019 bii tamit ministre de l'intérieur def ko ici c'est le conseil constitutionnel am na équipe bu mu def peut-être que ministère de am na ñu leen fa teewal ñoom ñoo war a expliquer ëllëg. wala boog ci recours yi nga xam ni yi candidats yi déposé nañ ko parce que dañu formé nag benn collectif parce que jàpp nañ ne lu mat cinq cent mille électeurs nee nañ nekku leen ci fiche électoral loolu nag du ndaw. mais du fi gulet tamit Alioune. boo xam ne gulet la fi dama ne lu mais dañ ko expliquer sa à dire que lu mat mille électeurs nee nañ nekkuñ ci fichier électoral bi dont des candidats peut que loolu gulet la fi.